SeneInfo International. yàlla mi ñu mayoon daaw ñu fekkee ko ren ak tal ak ak ñu ngi sant yàlla bu baax. Eh, di am mbégte fa tabaarakallaahu ni ki tey muy mawlidu rasulillahi sallallahu alayhi <coughs> bi nag yàlla dogal bi muy weeru teroo dama woo ne naa ko wëral ay nag ci taalibe yi yàlla dogal na wër nañ nag am na ne yu bari na ngeen gis nii yëpp ñoom ñoo ko dajale am na yoo xam ne sax agsi wuñ ci waam ñu ngi ci kër gi fa tabaarakallaahu dox nañ ci lu bari dem nañ ci ay place yu bare bare bare ci Saalum eh, taalibe yi ñoo am pas-pas am dogu am gëm-gëm am yaakaar yëkkati ay nag am ñoo xam ne koo xam ne xam ñoo xam ne joxe nañ fukki nag am ñoo xam ne joxe nañ ñett am ñoo xam ne joxe nañ juróom am ñoo xam ne xaalis lañ joxe loolu def nañ ko ngir guddik rasulullahi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko si laajo ndaw jàngale rek waaw wakkulu man wakkulu man jadda lil mawludi yaxsimo fafasoo bi mu ngi ñaan mu ngi mën a wax ne yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne yaa ngi màggal rasulullah ak noo ko mën a màggalee ne yëg ne bu yowmal qiyaamee sa texe ci yonent bi du lu ñoo nëbb mu nag mu nekk guddi goo xam ne fa tabarakallah wattafaqal qurra turan anna mawliduhu xayru layla ala ilaa xina séymi mu ne borom xam-xam yi dañoo dëppoo ñëpp dajee ne guddi mawlid rasulullah moo gën ci mboolem guddi goo xam ne dañ ko màggal ndax waa mëlëk ko dañ ko doon màggal kon ñu nit fañ war dañ koo màggal ndax njëkk mu juddu eh, Seydina Yamane dafa wax ne xamal rasulaka tafsiran bi quwwatihim qabla wiladati njëkk muy juddu yunti mas a ñëw dana wax mbiram nekk bu juddoo nii lay defee nii lay mel nii lay mel kon nag bu Yàlla dogalee bañ ma ñu kattan ñu dajeeg Seydi Laaji Omar Ndaw xam mi nga xam ne ci ko yàlla teg mu xam yàlla xam lay teg tànk bi ci suñ sariya teg tànk ci xaqiqa naa aleyka bil xarfi min al barayni sariyat xaqat nuurayni kon kooku fa tabaarakallaahu foo ñu delloo njukk Alaaji Ndaw waxoon na ne de buñ toogee ba alaaji moon sëñ Omar Ndaw daray gëlëm ci gàmmam gi tey ñu ngi dem ci téeméer nag ak juróom fukk wala ñu ngi bëgg am ñaar téeméeri nag kon fa tabaarakallaa waar wi yokk naa ci lu bari ndax nay masuñu romb ñaar fukk nag ak juróom bu ma ci bokkee ba léegi ak naa téeméer ñaar téeméer laa bëgg am loolu yëpp jafewut jafewut déedéet jafewut ndax nit boo ko boo ko jaayee li mu bëgg da koy gaaw a jënd waaw nit boo ko jaayee li mu bëgg da koy gaaw a jënd te yàlla dafay jaay mhm. inna laa istara minal muminina wa anfusahum wa amwaaluhum kaanun janna yuqaatu fi sabilillahi yàlla ne maa nga jëndantee julli yi seen xalal seen ñaq seen bëgg-bëgg ak seen dogu ak seen gëm ma jaale alaa joma fekk naa ci ñoom alaa joma ndaw te alaa joma ndaw képp koo xam ne xam na nga moom sa xol bi set da nga bëgg yàlla danga nga bëgg yonent bi da nga bëgg mboolem julli ji te am ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla xam ñoo xam ne nii seen man-man sax xëpp na fukki nag mhm. waaye ñu joxe nañ fukki nag mhm. loolu yombut te jamono bi xat jamaano bi jafe na waaye sëñ Muntaxa yan rahmatulahi moo daan wax ne jamaano xat-xat ak jamaano jafe-jafe ci la ñu xàmmee borom pas-pas léegi nag tabaarakallaa joxe na ko dajale jox ko sëriñ bi teg ko ci loxoom ngir ñu ñukkale ko yonent bi njukkale ko laa joboon ndaw gan ñu xam ne joxe nañ gëlëm gëlëm yi bëri nañ fi lool am na gëlëm yoo xam sax dañ siñ si kër na fa lool gëlëm yi bëri sant yàlla loolu yëpp yaakaar la ñu ñaan at nekk rek gën a yokk lañ teg pour mu gën a yaatu waaw daayira yi rek daayira yi rek daayira bu nekk moom bu dajalee lam dajale bu amee deux cent mille deux cent cinquante mille mën na ci am nag parce que ni li nga xam ne moom moo la jaral nga yaakaar ko xóolu ko da ko sagoo jamono bu ne benn at ben at rek lañ ci laaj nag loolu yomb na te sëriñ bi nee na ma bal bal bul forcer kenn waaw koo mën a laaj na la jox ko xamut baal waaw moom yàlla jaral na ko lu ne sëñ Omar Ndao laay liggéeyal te sëñ Omar Ndao ku ko liggéeyal mu fay la te taalibe yi seen ñaq sëñ Omar Ndao moo fa taq dana fay duxu min daawa taalibi lépp lu xam ci xéwal ak tiraanga ak wasak bu nangoon ñaanal sëriñam kon mu yokk kon ñu ngi gërëm xalifa bi di ñaan yàlla Seydi El Hadji Bassirou yàlla na ko fi yàlla yàggal ndax yaatal doom doomi magam lañ doomam lañ sëteelaa joma ndaw lañ yaal nañu nekk nañ taalibi nekk nañ doom ci kër gi waaye bàyyi nañu xel nit ku ne boo ko joxee lam man rek nan ci am résultat SeneInfo International